أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام suñu dars passé ci qisasul anbiya ñu ngi woon ci qisatu zilkifli ñu ngi tolloon fi ko Ilyasa joxe pal gi daal di koy wuutal ci jaami yàlla yi pour mu àtte ci maandu ak dëkk mu ne fa kaana baada dalika min al anbiyaai alladina awxa allahu ilayhim moom zulkifli mujj na nekk ci yonent yi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala daf leen tànn yónni leen wa kaana zulkifli rajulan saalihan moom waa ju baax la woon wa xakaman attekat la woon waaye muqusitan ku digg doomu aadilan ku maandu dafa boole woon ay critères yoo xam ne bariwul ci àdduna ñu ko am ci ay borom xam-xam walla ay buur walla ay attekat walla ay homme de pouvoir moom critères yu njëkk yu mu am mooy ku baax la woon ku ñépp xam ne ku baax la waaye xakaman ku amoon xereñte la ku mënoom leeral la ak frem fànc ay mbir waaye ku diggu doomu woon la waaye ku maandu woon la lii bariwul nit ku boole jikko yu mel nii bariwul ci àdduna waqad taahada zulkifli an yakfiyahum amrahum mu ne zulkifli togg na waral ci kawam ne lépp loo xamante ne mbiru jaam ñi la mbiru doomu aadama ya nga xam ne moom la jiite woon falu ngir ñooñu seen mbir yépp mat moom togg na ko teg na ko ci kaw ay loosam wa yaqdi masalihahum daanay defar seeni mbir wa yaxkumu baynahum bil adli muy àtte seen digg ci maandu wa kaana rajulan saabiran góor la woon goo xam ne ku mënoon muñ la waaye mu'minan ku gëmoon yàlla la kon gis ngeen ba mu toggoo jaam ñi yore seen mbir lan la def mooy lépp loo xam ne day yéwénal seen dund mu def ko loolu la buur di jëriñ buur lu muy jëriñ mooy ñëw fekk jafe-jafe nit ñi nga teggi ko waaye ab buur waroo ñëw fekk nit ñi am jafe-jafe nga koy yokk fekkee buur bu baax nga dangaa jiite nit ñi soo ñëwee fekk nit ñi li gën a nekk seeni problème li gën a nekk seeni jafe-jafe danga ko war a yombal bu ñu xiifee nga jox leen ñu lekk bu ñu maree nga jox leen ñu naan bu ñu raflee nga sàng leen bu ñu feebaree nga faj leen lu ñu bëgg ci xeet wi bu dee lu dagaan la nga taxaw ci loolu moom mooy buur waaye bokk na ci màndarga yi ñuy xamee buur bu baax bu rafet mooy màndarga yi ñu xàmmee zulkifli mooy wa yaxkumu baynahum bil adli booy àtte nit ñi na nga àtte ci maandu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na àttekat yi ñett lañ ñaar ñaa ngi safara kenn ki mooy dugg aljanna àttekat yi ah ñett lañ ñaar ñi safara lañ jëm kenn mooy dugg aljanna àttekat yépp ci àddina bi ñett lañ ñu ne ko ñett ñetti àttekat la mu ne àttekat bi nga xam ne xamul dëgg àtte lu dul dëgg su dee safara la jëm deuxième bi mu ne attekat bi bi xam dëgg attewul dëgg safara la jëm ñetteel bi mu ne attekat bi xam dëgg atte dëgg bu dee dugg àjjana ñetti attekat yooyu ñoo am ci àdduna kii dañ ko indil ay caaxaan lu dul dëgg mu dem àtte ci lu dul dëgg bu dee dee dem safara kii dañ ko indil dëgg gaa ngi nii lii la mu soppi dëgg gi ay fen dem def leneen yeneen bi nee na bu dee dee dem safara kii nag dañ ko àndeel dañ ko indil dëgg gi mu àtte dëgg gi yeneen bi nee na bu faatu dugg aljanna zulkifli nag moom da daan àtte diggante jaam ñi bil ma ci maandute te xam ngeen ne maandu àtte moom maandute rek àtte maandu àtte maandute rek mooy mooy mooy mooy mbir mi Omar ibnul Xattaab bi ko waaj a fekkee ci suuf garab gi muy nelaw njaganaayoo ay dàllam benn waaye boo xamante ne waa ruum ñoo ko yónni woon man duubul ruum moo ko yónni woon bi mu ñëwee mu ne ana amirul muminin ana président de la république gaa yi ne ko jaar na mbedd mi mu jaar mbedd moom ne ana président bi ñu ne ko jaar na nii de romboon na nii léegi mu dajeeg benn waaye ne ko ana président mu dafa mel ne romb naa ko fekk suuf garab bi muy nelaw ñoo fekk mi ngi tëdd mi ngi njaganaayoo ay dàllam allahu akbar mu ne ko xakamta wa adalta wa aminta wa nimta xakamta àtte nga bi nga àttee wa adalta nga maandu bi nga maandoo wa aminta nga am sécurité am kóolute fa nimta moo tax bi nga tëddee nga nelaw ñu nag sunu buur yi du nelaw bu ñu tëddee du nelaw lu tax parce que dañoo àtte lu dul dëgg mbokk yi bokk na ci xàmmekaay yi ñu xàmmee zulkifli wa kaana rajulan saabiran góor gu mënoon a muñ la loolu yàlla moo ko wax ci alquran yàlla moo ne wa ismaila wa idris wa zalkifli kullun min alsaabirin wa adxalnaahum fi rahmatina innahum min alsalihin ci suratul anbiya aya 85 86 yàlla di tagg lenn ci ay yonent mu ne Ismaïl ak Idris ak Zalkifli ñoom ñépp yàlla nee na ay muñkat lañu woon ay muñkat mbokk yi ab jullit day muñ ay yi ñëw ci muñ ci alxuraan kenn xamul nu mu toll borom bi di soññ doomu aadama yi pour ñu muñ wa bassir sabirin zil kifli mi bi ko yàlla di tagg yàlla nee na muñkat la waaye wa kaana muminan ku gëmoon yàlla la subhanahu wa taala loolu moo tax bi Ilyasa di laaj naan kan moo mën nangam kan moo mën nangam loolu yépp nekk lu baax moom mu ne man mën naa ko borom bi subhanahu wa taala waxaat ci suratu sad aya 48 mu ne wazkur ismaila wal yasa wa zal kifli wa kullun min al axyaar fàttaliku leen fàttalikul ismail ak ilyasa ak zal kifli yàlla nee na ñooy ñëpp ci ñi ñu tànn lañ bokk fële daf leen ne dañoo mën a muñ fii mun a ci ñi ñu tànn lañ bokk lan moo tax yàlla tànn leen mooy wax na ko dañoo mën a muñ yàlla du tànn ku mënul muñ soo bëggee yàlla tànn la daf la njiit fokk nga muñ fokk nga muñ dars durus yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci dundu zilkifli ad durus al mustafada min al qissa leçon yi ñuy tiire di ko jële ci histoire zilkifli bu ci njëkk mooy al muslim yaxris kull al xirs ala nasri al xayri jullit dafa war a xër bépp xër ci tasaare lu baax lépp luy lu baax jullit dafa war a xër pour tasaare ko xam ngeen ne tey nit ñi bu ñu doon tasaare ak mbaax jàmm mooy tasaaroo ci àdduna mais tey nit ñi lan la ñuy tas mooy ak mbon da ngay gis sax yenn saa yi ku ne da ngay jaay bon di nga xam ne maa la gën a bon mosoo gis mu ku ne da ngaa baax di nga xam ne maa la gën a baax est-ce que mos ngeen koo dégg kan moo mos a dégg loolu fii ku ne da ngay jaay baax di nga xam ne maa la gën a baax chaque jour rek looy dégg mooy ku ne bon ngay jaay di nga xam ne maa la ko maa la ko ëppale maa la ko dàq maa la ko gën a mën maa la gën a saay-saay maa la gën a wéyu maa la gën a bandi maa la gën a reew maa la rek yooyu rek ngay dégg doo dégg mu mu ne ah yow de yow de ni nga baaxee di nga xam ne maa la gën a baax ah man de mosuma koo dégg kon lu baax ab jullit dafa war a xër ci mu tasaaroo waaye wala nafi naasi jullit dafa war a xër ci luy jëriñ nit ñi lépp luy jëriñ nit ñi nga xër ci wa iisaalil xayri lahum fi xayaatihim wa baada mamaatihim nga fexe jullit ñi nga yeggal yiw ci ñoom nga yeggal lu baax ci ñoom ci sa dund ak sa dee lii dañ koy tiire dañ koy jële ci dundu zil kifl mooy moom dafa xëroon ci tasaare lu baax luy jëriñ nit ñi ak yeggal yiw ci dundu nit ñi dundam ak dee faqad ra'ayna mu ne gis nañ kayfa kaana ilyasa alayhi salaam xarisan ala an yaxtaara rajulan yacdilu bayna annaas wa yarxamuhum min bacdihi yonent bi tudd Ilyasa gis ngeen ci biir dars bi mu xër trop ci tànnal nit ñi waaju baax ju leen jiite waaju baax ju leen jiite bi mu demee ba war a xam ne moom day faatu mu dajale nit ñi kan la leen tànnal ku fi ëpp doole ki fi ëpp alal ki fi gën a ñàng ki fi ëpp xam-xam daf leen tànnal waa joo xam ne moo ci gën a ragal yàlla moo ci gën a baax waa joo xam ne xam na ne kii bu faloo dana maandu ci biir nit ñi waaye dana leen yërëm ginnaawam gis ngeen loolu moo tax buur dafa war a am yërmande buur dafa war a am yërmande yonent alayhi salaatu wasalaam bu daan ànd ak nit ñi ñuy dem jihaad ci yërëm bi mu yërëm ñi amul doole day wax borom fas yi ak borom mbaam yi ak borom giléem yi nekk leen ci ginnaaw mu ne ñi amul lu nu war ñiy doxe seen tànk mu ne nekk leen ci kanam lu tax loolu ah déedéet lu tax loolu ah déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet tànk ak fas lu gën a gaaw kii dox tànkam bu ko fas bi jiitoo muy dabi fas bi nu muy def day daw waaye boom bu jiitoo loolu moo tax yonent bi xam ne ne bu ñuy war jiitoo borom tànk yi dañuy sonn parce que nit mënul topp fas waaye fas mën naa topp nit moo tax danaan ñi am ñi dox ak seen tànk jiitu leen bu ñu àndee ak ay jigéen danaan siiru siira du ofaykum dox leen doxu ñu néew doole maanaam wàññi leen jéego yi parce que ay jigéen ngeen àndal gis ngeen sallallahu alayhi wa sallam buur dafa war a am yërmande buur dafa war a wàcc mais xam ngeen ne tey ci àddina bi ci sunu réew yi buur bi buñ ko falee ah kenn doon ko gisati waxuma sax buur bi buur bi sax dafa sori ci mbuur yu ndaw ndawaan yi rek maire yeeg député yeeg sénat yeeg sénateur yeeg directeur yeeg bu ñu leen falee li ñuy njëkk a def mooy changer numéro téléphone boo wootee rek boîte vocale dootoo leen jot xool te démb kat fii lañ nekkoon ak nit ñi di lekk ci ceebu keccax bi foo romb gis ci grand place bi ñu toog mais jour bu ñu leen takkalee ndombo tànk keroog la leen nit ñi gëj a gis loolu musiba la loolu musiba la nit ku baax danga war a fexe sa xeet sa société fi nga nekk nga góor góorlu nga maandu waaye nga tasaare ak mbaax ak yërmande ci seen biir ñaareel mooy alwafaau bil ahad jullit na jële ci dars bi respecter rendez-vous mooy respecter li mu wax respecter li nga wax ba ñu yan la ko nanga ko sàmm tey nag da ngay dégg maa waxoon waxee léegi amuñ amul fépp lépp fépp la léegi fépp la fépp la ci biir société foo dem nit ñi li ñuy wax gëmuñ ci tus waaw gëmuñ ci dara benn waaye nee na dafa nekk ci oto benn politicien bu mag romb ko mu xool oto bi bu des place mu leen lu ngeen ma yóbbaale ñu ne ko oto bi fees na te xool na gis oto bi xam na des na place mun nañu dem tuuti rek mu seen remarque di yéeg seen kaw oto bi paccaxoo ñépp daw ñëw mu ne mu daw mu ne nii mu xool mu gis gaa yi daal ñii kenn dundatu mu ne ñu leen di génne ñu génne leen teg benn waaye ne ñii dañoo dee mu ne ñii deewuñ de ñii ay politiciens lañ deewuñ duñ dee waaye ñu ne ko ñii dañoo mu ne ko deewuñ ñii moom mu jël oto dem yoonam mu ne ñii deewuñ mu ne lu mu bugg a wax mu ne politicien lu mu la wax bul ko gëm xoolal ñu ngi ne ko oto bi daa fees te feesu moo tax mu ne moom seen dee sax gëmu ko léegi bu ñu demee ba àdduna boobu mel noonu jamono bi mel noonu ñu mel noonu jiite yi ñun fu ñu jëm mais suñ dund du baax parce que ku yonent bi waxoon ne innama axaafu aleykum aimmatil mudillin li ma ragal ci yéen mooy ay njiit yuy réeralaati gis ngeen loolu moo am tey njiit ci àdduna njiit ci diine ñépp di réeralaati ku nekk di def lu la neex waaw kenn gëmu ci tus ci li ñuy wax ak li ñuy def loolu musiba weesuwul loolu te jullit bokk na ci liñ ko war a xàmmee mooy alwafaau bil ahad nga respecté li nga dige wal waadu min sifaatil muminin respecté dig dafa bokk ci melokaanu way gëm yàlla faqad raayna anna zal kifli waada ilyasa alayhi salaam bi an yaadila bayna annaas an yakuna aabidan lillah fa kaana kama qaala wa wafa bi waadihi fa akramahu llahu taala baada zalika bi nicmati nubuwa nee na ñun ñëpp gis nañ naka zilkifli dig na ilyasa ne ko man mii boo ma joxee mbir mi danaa maandu diggante nit ñi danaa nekk kuy jaamu yàlla ndax ñaar yooyu def na ko wala def def na ko moom warul zilkifli warul ilyasa waru ko bi ilyasa tànnee mbokk yépp ñépp ñëw dëkk bi yépp ñëw mu ne leen damaa bëgg a seet ku leen jiite waaye kooku day day def nangam def nangam kenn yëkkatiwul loxoom zalkifli daal di yëkkati ne man mën naa lool ba mu jël mbir mi jox ko est-ce que war na ko est-ce que dem na tëddi këram commencé changé ah uday gaar def ci buntu këram ku ñëw ñu ne da ngay ñaan rendez-vous wala ku ñëw ñu ne fàttu na wala du recevoir bis bi def na loolu abadan li mu waxante woon ak waa jooju ba waa ji jox ko ndomba tànk mu jiite réew mi jiite xeet wi loolu daf koo def lan la ko waxoon mu ne ko dinga ma fekk may ku maandu may àtte diggante nit ñi ci maandute loolu def na ko waxoon na ko ne dinga ma fekk may aabit jaamukatu yàlla loolu def na ko fa kaana kama qaala mu daal di nekk la mu waxoon li mu waxoon def na ko jàngeen ci alquran yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu li ma taquluuna maa la tafaluun ee yéen ñi gëm yàlla ee yéen ñi gëm yàlla la yàlla wax lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def boroom xam-xam yi nee nañ isa qulta naam fi daynin fa atimmahu fa inna naam daynun ala alxurri waajib wa illa fa qul la wa tastarih wa tarxa biha wa tarbaxa biha li alla yaqula annas annaka kaasib nga la waay doomu ndey boo waxatee naam boo waxatee waaw waaw xamal ne waaw bor la ci gor waaw bor la ci gor gor xam ngeen gor ah xam ngeen gor xam nga gor xam nga gor gor xam nga gor gor mooy lan gor gor day dégg ñu ne man gor piir laa lan mooy gor gor piir jaam piir ah gor ak giir giir ça fait deux gor mooy lan gor mooy koo xam ne bëggul lu lu ñaaw takk ci moom.
kooku mooy gor ku dëgg ku bëggul lu bon ku bëggul dara loo xam ne ay falaa falaa la kooku mooy gor aha kooku mooy gor est-ce que ay gor bëreeti na Sénégal ndeysaan est-ce que ay gor bëreeti na Sénégal balaa alxuraan wàcc lislaam di tasaaroo ca mag yàlla yónni yonent bi alxuraan commencé wàcc benn bis benn jigéen boo xam ne du jullit mu dégg aaya alxuraan naan yàlla naan jigéen ñi gëm yàlla bu ñu ñëwee ci yow yonent bi bëgg a jaayante yow isa jaakal muminaat yu bàyyi naka jigéen ñi buñ ñëwatee ci yow di jaayanteeg yow ne dañoo bëgg a nekk ay jullit na nga leen garanti lii buñ ko nangoo nekk ay jullit dafa bokk ci loolu yàlla mu ne bu ñu sàcc bu ñu njaaloo benn jigéen bu tudd hind boobu moom du jullit bi mu déggee baat boobu ne jigéen ñi waruñoo njaaloo dafa ne ataznil xurra est-ce que gor dina njaaloo mu ne dégg naa yàllaay Muhammad di wax jigéen ñi julliti bu nu njaaloo mu ne moom muy laaj moom du jullit de muy laaj mu ne ndax gor dina njaaloo gor ndeysaan ataznil xurra mu ne ndax gor dina njaaloo allahu akbar nan xoolaat suñu bopp tey ji bu hindi ñëwoon Sénégal kon de gor yi duñu bari mbokk yi moom zalkifli li mu waxoon def na ko ba mu ne dana nekk ku maandu kuy jaamu yàlla mu ne fa akramahu llahu taala baada zalika bi nicmati nubuwa ba mu waxee ne dana def loolu lan la ci jële mooy yàlla terale ko ci loolu mu chargé wu lu baax loolu mu def yàlla def ko ab yonent ndeysaan gis ngeen moo tax xéewal bëri na saa yu doomu aadama jaaree ci yoon bu baax xéewal bett ko ci kii ba muy jël charge ne moom mën na def nangam ak nangam xamuloon lu mu ko ciy fekk mais xam ngeen lan la ko yàlla faye ni'matu nubuwa yàlla def ko yonent noonu la yàlla tànne woon Muusa Muusa dem na dëkku Shuaybu Madiyana bay ñibbi takk doomu Shuaybu di ñibbi Égypte bi mu ñëw ba ci digg àll bi mu réer bi mu réeree mu dox ci àll bi ba sonn ak soxnaam ak ak ay xaram ak li mu àndaloon mu seen benn tàkk-tàkk lumière mu ne jabar ji walla ñi mu àndaloon resté leen fii seen naa fële benn tàkk-tàkk su ma demee ma laajte ki ma fa fekk dina ma woon yoon wi wala bu fekkee fekk ma fa nit ma jël benn gilet gilet ko xam gilet fii ah gilet gilet gilet ah gilit gilit mooy bant boo xamante ne bopp bi moo tàkk yenn saa yi sax am na ñu koy jël di ko def nii di ko di ko niitee loolu mooy gilit mu daal di koy jël mu ne su ma demee ma fekk fa su ma amul ku ma fa fekk pour mu wax ma ko mu wax ma yoon wi naa fa ut loolu ma su ma ñëwee ma dajalaay bant taal ñu am lu ñu jaaroo bi mu ñëwee ba jib safara si rek yàlla daal di koy woo ne ko Moussa man la yàlla may wax ak yow inni ana allah laa ilaha illa ana amul benn buur bu ñu war a jaamu budul man déglul li ma lay wax ana faxtartuka tànn naa la tey déglul li ma lay wax day sax gis nga kon nit saa yu ko yàlla santee dara mbaax mu nekk ci yàlla subhanahu wa taala dina ko indil xéewal mbir mi yépp mooy est-ce que li la yàlla sant di nga ci nekk est-ce que di nga ko respecté est-ce que li nga wax di nga ko def mbokk yi kenn mësta jaar ci yoonu mbaax mbon daal di ko ciy fekk mënul nekk mënul nekk kenn mësta dugg ci ndox te tooyoo waaw yoonu mbaax kenn du ko suub di alko mas ngeen dégg ñu ne ii kii de daa baax moo tax mu alko mësa dégg loolu kii daa baax moo tax mu alko su mënul nekk kon yàlla li mu wax mooy dëgg moo tax waa ji ba mu jaaree ci yoon wi yàlla wax lan la ci jële mooy yàlla daal di koy fay ci loolu mu def bi ni'mati nubuwa yàlla may ko defal ko mu nekk yonent xoola Muusa yàlla da ko ne tànn naa la nga nekk yonent mu ne ak sama rakk ji ma àndal yàlla ne moom tamit def naa ko yonent wala ak sama rakk yàlla ne ko ak moom def naa ko yonent lu tax parce que dafa jaar fa ko yàlla sant moo tax bi mu pro bi ko yàlla ne yow yonent nga mu ne ak ci sama rakk yàlla daal leen tànn ñoom ñaar ñëpp daf leen ay yonent mbokk yi ñetteel mooy ann al adla wa salaax wa taqwa sababun li duxuli l insaanu fi rahmatillahi jalla wa ala jot nañu xam ci dars zilkifli ne maandu ak mbaax ak ragal yàlla ñett yi sabab la pour doomu aadama am yërmande yàlla ci ñun fii ñu toog bu fekkee am na kenn ci ñun ku soxla yërmande yàlla na xam ne mu ngi koy amee ci maandute mi ngi koy amee ci mbaax mi ngi koy amee ci ragal yàlla maandu ci lépp al adl maandu ci lépp maandu ci sa wax maandu ci sa jëflante te loolu tey lu doy waar la doomu aadama yi lu néew ngay gis tey ku maandu ci jëflanteem ku maandu ci ay waxam ku maandu ci ay dugg génnam te loolu mooy sunu problème bu gën a rey mooy maandute maandute même ahlul kitaab même yéeféer yi yàlla dana nañu maandu ci seen biir al adl maandute même ku mu mën a doon ñu sant la ci na nga maandu ci ay mbiram kon maandute ak mbaax asalaax mbaax ak di baaxal ak taqwa ragal yàlla ñett yi mu ne sabab sabab la ci li duxulil insaan fi rahmatillahi jalla wa ala ci doomu aadama mu dugg ci yërmande yàlla subhanahu wa taala mbokk yi fii nu toog bu ne bu ne bu ne waxoon ne nàngam bii ku ko def di nga am xaalis dañ ko def wala duñ ko def ah bu ñu waxoon tey jii ku julli gee ba pare nga dem sa kër nga julli téeméeri ràkk ràkk bu nekk nga jàng ci téeméeri yaasin bu sëlmalee insha allah di nga am un million dañ ko def wala duñ ko def ah dinañ ko def lu tax ñu koy def bëgg xaalis waaw kon buñ jàngee ñu neñu maandute ak mbaax ak ragal yàlla day tax nit am yërmande yàlla bëgg nañ yërmande yàlla wala bëgg na ko kan ci ñun fii moo bëgg rahmatullah yërmande yàlla benn nit ñaar ah ah kon ñi yëkkatiwul seen loxo ñoom bëgguñu quoi léegi suñ nee ku def nangam ak nangam bi da nga am yërmande yàlla kii dégg loolu lu lu ko lu mu war a def kon ku bëgg yërmande yàlla nooy def da ngay maandu da ngay baax da ngay jéem a ragal yàlla soo ko defee nga am yërmande yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu ko yàlla may loolu moo doon dars tey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu incha allah mbokku jullit yi àllarba bii di ñëw ci kàttanu borom bi wala bii ñëwaat ñu ngi jël qissatu yunus alayhi salaam histoire yunus yal nañ ci yàlla yóbbu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu labbayk